asalaamaaleykum mbokki xarit yi seetaan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV ñu ngi fii ci quartier Mbour di dalal ki nga xam ne rek moom mooy Pape Sarr ne kenn responsable politique euh, bu APR mais fare ci peggu Siré Dia di directeur général bu poste euh, Pape dañ lay wax nga nuyu ak mbokki xarit yi ci Thiès Info ak Thiès TV. waaw Omar ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yeneen jàmbu tedd bi euh, sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ ñu ngi nuyu internetu Thiès Info yëpp di nuyu assistance bi fi fi ñëw yëpp ci turu directeur général di nuyu population Thiès yëpp ci turu directeur général. alors euh, Pape dañu ñëw rek euh, ci laaj bu njëkk bi wàllu situation politique gu Thiès tey gis nañ ni Pape Sarr mu ngi activer wu te gis nañ ci wàllu sport ak li ni daaw defoon nañ ko ñu gis ba léegi Pape naka nga def ba mën a maintenir base bi nga xamante ne tey am na importance ci secteur bi nga yëngu di ci jàppale directeur général bu poste di Pape Siré Dia. waaw loolu boo gisee ñu mën ko euh, Omar comme li ñuy wax feccub liir bu neexee yaa jaatee ci mbag yi ñun lépp lu ñu mën Cees wala ñu mën ko téye ba nëgë nii c'est grâce à l'incontournable et l'incontesté le directeur général Pape Siré Dia qu'on présente plus parce que moom la ñu taamu bi ñu dugg APR def ko sunu bunt def ko sunu responsable def ko sunu kilifa te umpale wuñu ne nit nag boo nekkee kilifa euh, da ngay copier ci moom ci ay ay jëfam te moom comme il a l'habitude de le dire jëfam yëpp daf ko basé ci diine ak sociale parce que j'ai l'habitude de le politique boo ci génnee social actuellement à l'heure où dootul amati sens fi àdduna toll waaye social aussi à Thiès soo ci génnee Siré Dia euh, non bi dootul amati raison d'être moo tax ñu topp ay tànkam topp ay ndigalam topp politique am topp yi nga xam ne mooy jëfinam ba mën a maintenir tey la cadence par rapport ak sunu politique par rapport ci secteur sportif ak secteur social ak au niveau de nos quartiers au niveau de Thiès. alors euh, Pape suñu ñoo rek euh, ci li nga xamante ne mooy bilan ci wàllu sport euh, ñu gis nii ça fait un an bi nga xamante ne yaa ngi activé wu ci ay lamb ak i ay ASC ak i ni mel ñu bëgg wax ni bilan wu Pape ci peggu Siréja ban bilan la. c'est un bilan que je peux très positif parce que je pense qu'avant, avant may nekk ci Sirédia Je activé l'outil sport mais depuis que je l'ai côtoyé daf ma de motivation ci dirigeant le sens du dirigeant euh, ce qui m'a permis d'être je pense qu'à à un an euh, nek bon président d'une plus grande zone de Thiès la zone 4B donc loolu bu aussi euh, le président Mbite est là de la zone 2 qui est venu répondre à mes appels qui est un produit aussi du directeur général donc nous, nous, le mouvement et les sportifs amenant une satisfaction par rapport à ce que nous avons fait lañ doon sur le plan aussi l'ambi, la popularité bi moom moo pour nous activer au leader en contact permanent avec toutes les couches de la population dans les sportifs les hommes de culture l'éducation la santé euh, euh, euh, la lutte

alors très bien ci wàllu APR wala benn bokk yaakaar ci biir commune bu Thiès gis nañ coow lu bëri di jóg ci wàllu coordination ñenn ñi xalaat ni Siré Dia war na ko mën a def ñeneen ñi xalaat ni Siré Dia waru ko mën a def ñu bëri di wax ci li nga xamante rek mooy wàllu taxawaayam ci biir Thiès mais également au niveau national parce que tamit c'est un directeur général mais li ni mel euh, Pape lan ngeen ci àddu. je pense que coow li ci taatu teen yi. ñi amul baag la Omar. Euh, élection la ñu génn. C'est de seulement qui, est, euh, qui a eu la légitimité de tous les Thiessois. Parce qu'il a, a, bénéficié de la confiance de la population thiessoise. C'est ce qui a prévalu les résultats yi nga président de la république Amnoko, qui ko élection parce que histoire si ñu a Thiès def na 12 ans kenn mosul décrocher les députés au niveau de de de de l'opposition du département mais Siré Dia la président am confiance si moom à un moment très critique moment bi Thierno Sall génnee APR ñëpp ragal nan destiné bi wala li Siré Dia président jël confiance mu and ceeg sele Thiès né man Thiès xaruma ba président fal ma ma doog pour sol sama may biñ ma xamé ba légui maa ci population bi sur le plan de l'emploi ma ngi répondre oui sur le plan sport ma ngi répondre oui sur le plan des mosquées ma ngi répondre oui sur le plan de la santé ma ngi répondre sur le plan des groupements féminins ma ngi répondre oui donc man ñeme naa fa ma jëm mu jël yan wi ànd ceeg ñi ci war a àndal waa Benno Bokk Yaakaar ba yàlla may ko ci ndam kon nag dama ne. problème mu coordination ou autre ñun c'est pas notre ordre du jour actuellement ñun waa Kër Siré Dia ñun waa Kër Siré Dia nous ñu def mooy dëgmal pour jël élection présidentielle yi ñu dëgmal ci lañ nekk mooy li ñu génne moo les gens ont profité de l'occasion de cet événement pour lancer la plateforme Siré Thiès Siré Sénégal et vous avez vu qu'il y a pas il y a même pas un mois on a eu à lancer la plateforme en mars vers 2019 avec Sire Siré Farad Macky Sall parce que dafa ne man li ma war a Macky Sall du ay législative Je bëgg àndaat ak moom continuer élection présidentielle Il ma fal ko dès le premier tour te ci loolu lañ euh, comme il est le siré national parce que sur le plan professionnel vous avez vu que c'est le directeur bi nga xamné ne dem ci Sénégal fekk fa infrastructure postale bu fi nek dafa nani mom ak gendarmerie ñoo ëpp ay euh, infrastructure fi ci Sénégal motax au passage Baba Galé va venir et on le remercie dama toog ak ben way kérok mu euh bo démé ba ba ba ben benn dëkk bu ñu wax euh, Medina Ndiagbé bi nga xamné mom moom la sunu ki Séléña bi nek ci yor directeur bo démé les xalé ñu ngi escandé ay turum foofu donc euh, le le siré partout ay a installé des antennes partout yo xamné ay postier ñoko yor ne fi siré jële won poste at fim ko jëmé fi mu ko indi ñun xam nañ ko foo mu ko jëmee tamit xam nañ ko te avantage lañ ci gis parce que xam nañ fi poste nekkoon démb ak fi mu nekk tey ñoom ñëpp ñu laxasu ne ah robinet bi ñu roote de duñu fexe mu sakk duñ ko yàq ndax président ko yor dañu ànd ak Siré jàppalaat président moo tax foo réew mi fu président dem nga gis ne Euh, da ngay gis pancarte Siré yi da nga naan Siré Dia sax moom moom dëkk boobu y a l'exemple de Kolda y a l'exemple de Saint-Louis y a l'exemple de de de de de de de de Ziguinchor partout où le président part da ngay gis ne ñoom ñoom la la la la les antennes les relais yi fa nekk ñu ngi jóg ànd ak seen famille ak les nouveaux recrues que Siré a a fait sur selon la demande postale ñoom bu ñu demee dëkk yooyu tooguñu di toog dañoo ne ñun politique la ñu xam Siré a répondu répondu à, à l'appel du président de la République sur le plan de l'emploi de la jeunesse sa politique donc nous sommes ñoom bañ demee pour nous Siré ñoom ñëpp dañoo jóg àndandoo di jàppale antenne Siré partout yeen fa fek pour pour pour pour pour dem les étudiants aussi ils sont là ci kanam touti di leen gis ñu ngi ni tok mohamed Cissé est là euh, Wade est là. Euh, Pape wax nga ko léegi ci en terme d'infrastructure li nga xamantene ne postal au niveau de la poste Siré def na mais tay euh, li nga xamantene moy plan Sénégal émergent bari na opposition bi ñi nga xam ne ñu koy ŋaññi parce que né liñ ñu doon sentu ak liñu gis dafa bokul est ce que yéen da ngeen di partager ak ñom vision bi ni mel. non non non vous avez très bien dit de, vous avez très bien dit de nous dire opposition c'est des opposants et eh, comme li ma sans wax sànq commencé naa la ne la coow li ci taatu ten bi ñi amul ils ne sont omnibulés que euh, que que que pour par le pouvoir fauteuil le président leen neex moom moo le ñu bëgg moom la ñu teg bët leen indi magasin où ils yëpp ubbil leen ils resteront toujours des opposants et nous on n'a pas le temps de les répondre Nous, on juge que le bilan du euh, plan Sénégal émergent le président répond partout où tu pars partout même les villages les plus reculés du Sénégal bon, plan Sénégal et bénéficie ou wu donc les opposants on les multiplie par les vecteurs nuls nous les euh, euh, jaïstes, nous les produits de Sirédia nous ces militants on n'a pas le temps L'initiative récente, de poser des actes politiques de poser des actes sociaux et alors euh, bu ñuy wax tey li nga xamante rek moom mooy seen taxawaay ci li nga xam ne moom mooy politique gis nañu Idrissa Seck depuis un certain temps mu ngi occupé média yi di def le Sénégal des profondeurs ci wàllu massification mais également ci wàllu prépare li nga xamante ne mooy élection 2019 Idrissa base am naturel mooy Thiès. waa Idrissa comme li ma la waxoon si seen émission yi est passé euh, c'est de l'histoire en scène pour nous parce que bay dañu ne sawewu tànk Charité bien ordonnée commence par soi-même. Idrissa Seck, euh, comme j'ai l'habitude de le dire, il fut un leader bu ñu doon wax national doon wax naan moo deuxième élection yi ñu donc bu ñu demee ba tey ñu Idrissa est en train de perdre des des des quartiers yoo xam ne dañ ko donc nous li ñu wax moo tax suñu plateforme plateforme ku nak bamou dess mu genn gi nga xam sou moy la plateforme euh, jël li dess biñu wara tek Idrissa je pense que euh, Siré l'a enterré vivant depuis Macky Sall passé nañu ko C'est bien avant ces élections législatives. alors que cadre yi Idrissa di yeuk di ko teg ci président Macky Sall maanaam di ko ni toujours mom ndongom la yeen lan ngeen ci àddu. c'est une question de niveau. je l'ai dit à une de mes émissions au référendum. Euh, il avait traité de Ablaye Ouad, président du Sénégal euh, Louné. ne à na c'est un euh, vous m'excusez un cadavre c'est un cadavre ambulant Proposez pour Louné donc le président de la république c'est une institution Idriss niveau bu les filles, ba un président de la république Du ko du n'importe quoi c'est une question de niveau te sénégalais c'est pas wax du nerf ak di brutaliser ak di c'est la jeunesse vous avez vu sur euh, Siré Thiès Sénégal euh, la base et majeure partie des gens qui sont là sont des jeunes ay jeunes fi donc jeunes nit ñi li leen ñor mooy jóg xamuñu Idrissa tombewuñu ak Idrissa ci ñu tombeel mooy Sirédia bi jël ay nit seen koñ Sirédia bi jël Moussa Ndiaye parcelle Sirédia bi jël Baye Cheikh ñetti kàdd Sirédia bi jël baabu Sarr Grand Thiès Sirédia bi jël Diegay euh, Kawsara Sirédia bi jël Codou Diop fële Sirédia bi ànd ak baaba Galle di liggéey Sirédia bi ànd ak euh, l'autre la

ci ñu mën a ratale Thiès yëpp inshallah rabbi bientôt avant les élections dinañ ko raatale téye ko jox ko sirédia mu jébal ko président de la république. alors ci wàllu boobu nga xamantene rek ñu koy wax euh, li nga xamantene toujours mom moy phare au scandale économique bu opposition bi initié ties dembu gis nañ ñi nga xamantene ño ñoo forme opposition di PDS réew mi ak yenen parti jog nañ di wax ni ciow li dafa bari ci li nga xamantene rek moy walu détournement ak tamit li nga xamantene rek moy Sénégal ni ko Macky Sall yoré yeen en tant que ndaw nek ci biir parti APR ci benn bokk yaakaar la ngeen ci yaddu wa ñun ñooñu duñ ci wax comme li ma la wax rek euh, euh, naar bu ndaw lu mu wax ci naar bu mag la ko gisee ñoom ñooñu ñëpp doon wax ak di dajale ay foire économique di wax c'est des produits ou de de de des des talibés ou des suqala Idrissa Seck ak ñeneen kon nag bu seen papa Idrissa di waxe noonu ñoom mënuñu bañ a waxe noonu mais comme li ma la waxoon ñun taluñu leen euh, détournement le mot détournement si c'est actuellement bu siiwee ci Thiès wala mu siiw Sénégal je pense que c'est l'avènement de Idrissa et de Ablaye Wade moo tax nit ñi xam lan mooy noowu détournement vocable moo boobu bu siiwee Sénégal defe naa ci événement boobu lañ ko xamee donc c'est pas à eux de nous dire des détournements ou autre suñ ci wax ils n'ont qu'à parler que ne ñun kat war nañu to Idrissa mi ñu àndal tooñ nañu ndax le mot détournement moom moo tax ba ñëpp xam ko te ñun nag fi mu Omar comme li wax boo bëggee émission bi neex bul loo xam wax Idrissa parce que Siré de l'a enterré vivant. alors très bien dañuy ñëw ci carte d'identité yi gis nañu ñu bëri ci wàllu kii bi ñuy wax ni gis nga ba léegi askan bi mënaguñ jot seen carte d'identité surtout euh, liñ ci def ci koppoor dafa takku ba xamante ne tey Sénégal yi waroon na fekk ku nekk mën a am carte biométrique bi. waaw loolu comme liñ ciy wax le ministre de l'intérieur intérieur àdduna barki démb il a dit que ne 92 des cartes ont été distribuées donc comme moom la yàlla dénk mu yor organe bi nga xam ne mooy toppatoo loolu bu ci waxee dañu tënku ci loolu li ci des nag mooy comme li may wax euh, li jot at li jotagul ni jot ak ni jotagul nous on a des gens qui travaillent avec nous ñi nga xam ne Sirédia lañ doon jàppale mais jotuñu sen carte ñi jotul sen carte on peut pas les orienter xamuñu fi lañ bok xamuñu fi lañ bok donc problème informatique la amna ñu ci jot 92 à l'heure où nous sommes espérons que d'ici 3 mois on va être à 95 ou 99 pour cent. alors euh, Pape bu ñuy wax tay ci li nga xamante rek toujours moy yeen sen seen euh, ci peggu Sirédia ci walu massification ak ralliement fan ngeen toll ci programme yi ni mel. ñu ngi ci ñu ngi ci comme li ma la wax euh, boo xoolee am na ñu ils doivent aller à Diakhao parce que y a des éléments yu fa nekk yu war a rallier si euh, boo xoolee au niveau de Cité Senghor on a eu des ralliements yoo xam keroog couvrir ngeen ko oustad Cheikh jiite est venu rallier euh, ci base directeur général ànd seeg Kouta Sall bi nga xam ne karimiste la woon nekkoon ci Karim Wade ñëpp ràññee ko ci mu ñëw on a vu les mouvement de soutien euh, par exemple le grand Matar Diouf mouvement action sociale pour un Sénégal émergent qui est un ami du président qui ne Siré déjà est légitime moo pour un pour jàppale parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne donc on a vu aussi qu'il y a des jeunes de Randoulen qui ñu nekkoon ci ci réew mi ñoom ñëpp nañu nee est xam nañu Thiès Idrissa la ñu rallier si on a vu aussi au niveau au au au o niveau. njëriñu Thiès yaa ngi confusion. njëriñu Thiès moo tax ñoom ñu ñëw ànd ci at at at directeur général boo xoolee.

du lu fi waay di def lu fi waay di def rek yaakaar yaakaar ngay am ci Siré parce que yaakaar yëpp ñi fi nekkoon dañ ko tas nit ñi dañ doon bind ay lettre di def ay émission di dem di def ay programme nit ñi di ci tas seen yaakaar mais bi Siré ji ñëwee ba tey xel yëpp a dal les gens même quand tu vois des gosses de l'école primaire si nous def un événement ils viennent nous voir grand nous, de sirée ñu ci mën a dimbali moo tax làmb ji mbër le slogan bi ñuy def je pense que bi ñu les siré Thiès ñun mbër yi ñoom à travers les boys Niang les ama siré nga Sénégal moo tax ñu indi siré Thiès siré Sénégal et on va essayer de gérer toog ci liñ ñu sant jàpp la massification bi comme ni l'avons ko waxee du làmb ji du lamb ji rek lamb ji siré moo ñu ku ñu tuddee dara te jiitaloo ci siré duñ ci duggu ku ñuy ci dara te jiitaloo ci siré duñ ci duggu ndax mom moo tax ba am crédibilité bi nga xamné si ci ci ci plan politique mom moo tax ni nga xam parce que dañu nekkoon ci ay base di réccu passage bi ñu defoon fañ nekkoon mais bi ñu ñëwee ba yex fii on a vu que né base yi ñu nekkoon ak fii ñu c'est diamétralement opposé motax euh mënuñu lu dul ànd ak moom jàppale ko bu toogoon Dakar sax ces lieutenants sont là on peut faire tout le travail jox ko ndam mu joxaat ko président de la république dès les premiers tours ci élection yi ñu dëgmal 2010. alors euh, très bien papa bi jeex na lan ngay tëjee. waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu directeur général di leen wax ne euh, liggéey bi. comme liñ ci waxoon président euh, euh, le directeur général Pape Siré Dia daf ñu newoon buñ ci arrêté mukk buñ ci tàyyi bi ñu paree élection la ñu ne continuer leen ngeen dem moo tax ñu ngi ciy xalaat ànd ceeg ay borom xel ànd ceeg sunu kër yëpp di sant ñëpp parce que amul depuis ñu ne ji amna manifestation bi commençant par les shérifs Dia les Baba Galle les grands Fallouba ñom Abdou Jojo les Lamine Gay les les Dieng Gaye Mbiita Gosar Diakhou Sall babu Ndaw ñom Lamine Thior les Paté ñom ñep amul kenn et les jeunes de notre quartier aussi les yoro mouvement teranga askan wi ñun ñëpp bi ñu commencé ba léegi amul kenn ku jëlul mbir mi def ko sa mbir ndax dañu ne luñ ci tudd directeur général rek ñoom ñëpp dañ ci tàq rép boobu ba tey amul jour bu ñu àndul ànd ceeg Lamine ñun ñoo ci def démarche xalaat yi yëpp ñoo ko partagé doo ñu nag ñoom Lamine les Samba Ndiaye les Pa Diakhou les Fallou les ba xalaat yi mën a am te on a d'autres stratégies yoo xam ne on ne peut pas les dévoiler ici dinañ ko di remercier ñoom Ndeye Daba ñoom toute la famille de Syrie que euh, suñu xel a mais ñu ngi remercier ñep di féliciter aussi sunu jigéen jeegay on a vu l'émission bi nga xam mi ngi ko def te mi ngi liggéey liggéey bu mucc ayib ànd seeg ñoom Thierno Faye ci son nord bi dinañu gën a ñëw yaatal Siré Thiès Siré Sénégal bi ñu andando pour des programmes ñu géré ko président bi te on vous remercie vraiment gis nañu liggéey bi ngeen def ba Toubacouta yaa ngi fay massifier pour le euh, directeur Siré on remercie tout le monde cher Sarr les jeunes du quartier ñep ñu ngi leen di remercier di remercier sama jabar gi nga xamné vraiment sant naa ko gërëm naa ko daal. voilà euh, mbokk xarit ñu doon sant suñu émission politique ñu doon le Pape Sax nekk responsable politique di ànd le directeur général de la Poste di liggéey mais également ak tout le staff du euh, directeur général de la Poste di leen jox di daje ci numéro incha